ginnaaw bi mu seete seetee Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly député ñu teye woon ko si kàddu yu mu yëkkati woon jëmale ko si njiitu réew mii moom Serigne Assane Mbacké de kontaanul xolam fees na ndax jàpp na ni condition yam ko fekk métti na loolu. moo ñu wax ci làmmiñam daan ne fii ma nekk ñu ma fi bokkal nekk chambre la boo xamante ne téeméeri nit ak benn ñoo fa nekk ci ab député boo xamante ne dañ ko waroon a yóbbu ci chambre boo xamante ne chambre bu boo xamante ne dina ak moom. cër bi mu am ci wàllu ndombal tànk kon kooku bu ñu ko bëggee jël ba ko humilier ba ko maanaam toroxal di ko def loolu loo xamante ne daanaka sax xëy na ñun duñ ca mën a duñ ca mën a egg. discrimination lay dund foofu ndaxte yeneen moroomam député yu mu fa nekkal ñoo ñu dey li leen may ak li leen permettre moom kenn permettre ko ko. ndax moom lam fa nekkee muy ay naataangoom moroom député nekk fa ñu boole leen jàpp privilège yañ may ñooñu sax moom. may ñu ko ndax ñoo ñooñu noonu nekk ay député bu ñu amee visite ñu leen seet si dañ leen di génn ñu def contact ñoom ñaar waxtaan mais bu dee Cheikh Abdou la bu ko nit dee seet si da ngay ñëw wax ak moom ci parloir bi moom ngay waxee ak moom. jàpp na ni nag dëkkandoo mi nekk tuuba rawat nay mbokkam dañ koo seetaan moo taxit mu ñaawlu ko bëgg nag ñu yëkkati si kàddu. maamam Serigne Abdou Dia defal Serigne Touba loo xamante ne Serigne Touba da koo gërëm gërëm loo xamante ne maanaam. njaboot gi ñëpp dañ cee xaj kon tey ji ab sëtam bu ñëwee ñu jël ko denc ko ci ab kaso mbokk yi njaboot gi ñëpp war a taxaw soutenir ko mu des kon ñun dinañ taxaw wax ne soutenir ba mu war a am ci famille bi dafa des. Serigne Assane Mbacke si dajeem ak taskatu xibaar yi mi ngi ñaan Serigne Mountakha Mbacke mu wax si lu nu mel bala moo ëpp. kon moo tax ñuy ñaan Serigne Mountakha bi nga xamante ne mooy Serigne Touba. di ko ñaan nga xam ne Cheikh Abdou doomam la jaar na ci moom mu yar ko jàngal ko def ci moom lu ne tey jii mu euh, euh, Macky Sall ñëw ak gouvernement di ko néewal doole kon ñu ngi koy ñaan sëriñ bi moom mu sànn ci kàddoom wax ci ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee. waaye nag bu dee yeew yi kenn demul mu des. ñoom la jàpp nag faalewuñu ko te taxawaay ba ca war. defuñu ko te lii ko dal ñoom ñoo ko ko teg. parce que Cheikh Abdou moo génn juróomi million jël ay avocat daal leen di fay benn avocat moo leen rax te bi mu ñëwee Cheikh Abdou moo yëkkati ñeent fukki junni jox ko te keroog bañ mandat dépôt Cheikh Abdou ca la fa boobu mujj te mujj a tege tànkam ma jàpp ne kon yeewi askan bi ak wàllu Sénégal war nañoo mën a jël pool de avocat boo xamante ne war nañoo koo mën a défendre war nañ koo mën a maanaam jàppale. sëriñ Assane Mbacke nag jàpp na ni sax nag si biir kàddoom bi muy amal ndaje bi nekkat sëriñ bi de bu dee wàllub social fii si Touba kenn mënu ko si bu dee wàllub taxawaleen ci assemblée si defendre dëkk bi kenn mënu ko ci kon tey jii de tekk tekkaaral bii Sénégalais yi am rawat mbokkam